waaw en tant que béykat moo taxoon ma bëgg euh, di doon protéger béykat yi moo tax ma bugg a wax ak béykat yi pour que ñoom euh, confusion bañ a am wala jaxasoo bañ a am dama ragal ne nit ki bu fekkee ne da lay protéger boo amee problème euh, du la mu sa bay waaye ki nga xam ne nag mosuñ ko dëgg mosuñ ñoo protéger ñoom seen intérêt bopp lañ nekk muy Rasiac léegi bu ñu demee dem ba ñun ñu tey problème bi doon am mooy jaay gerte prix bu bu bu baaxul mooy not sa gerte doo jot xaalis. mooy euh, lu ne bon impayé loolu yëpp ñu dem boo amut ñu jaay prix bu baax ñooñu commencé génni naan béykat bi gisu ci boppam ak nawet bi doxut ñu ne ñun bu doxutee ñun mën nañ ko waxal suñu bopp ñun kenn duñu ko waxal moom bu fekkee dafa am leneen lu muy régler nag ko régler ji waaye ñun li ñu gis mooy état bu defoon li bëgg kon béykat bi du kontaan ndax moom industrie la xam nga daf ne ministre deful walam ministre bu fekkoon ne dafa def walam comme ni mu ko bëggee du jubóog béykat yi ndax béykat yi jaaye prix bu baax moom lañ bëggoon prix bi ne ñëw 300 moom kenn téyewut loxoom lu ko teree jënd da doon xaar mu wàcc te bu waccoon bu baax du baax ci baykat bi kon ñun ministre boobu nga xam ne moo ñu jàppale woon nit ñi wax ba sonn lu ne ñu wax ko mu def sourde oreille bay ñu bu ñu jaay suñu gerte trois 300 bon MP amut monde rural bi kontaan. kenn mënul ñoo wax lu ñu jaxase ba ñu wax ci moom dara. waaw moom aar suñu moomel mën naa la ne aar suñu moomel moom Kafane organisation paysanne la waaye euh, moom li ma dégg muy wax dëgg naa muy woo état pour que bi mun a jot gerte bu baax jot gerte boo xam ne aussi dana posé bi dana mët dëgg naa muy woo état ci loolu loolu moom ànd naa ceeg moom. kantaan nag nga ne li nga xam ne moo waroon ñëw ci monde rural mi ñëw ci loolu moom c'est trop dur man dama ne loolu. Euh, am na lu bari loo xam ne rectifier nañ ko ci ñun ñoo doon taxaw ne les ayants droit ne sont pas servis ren nee naa la presque à quatre vingt wala quatre pour cent réglé nañ ko euh, kon boo duggoon ci àll bi des ayants droit ñoom lañ serviroon kon loolu comme am na ñu jaay prix bu baax wax dëgg ak yàlla du ma nangu ñoo xam ne nekkuñu ay représentant wu béykat bugg a def béykat yi prête-nom di wax ci ñoom loo xam ne mënul dem man loolu laa ne Raziak na arrêté yenn wax yi muy wax parce que bu fekkee dafa am problème ak ministre na dem régler ji problème am ak ministre ñun bu doxulee ñun ñoo koy waxal suñu bopp li wolof naan borom dëj mën na yuuxul boppam dëjam kon du ñu waxal ñun ñooy waxal suñu bopp te attention ma amnalum am na lu mu mën a wax moom parce que man li ma gis ci Rasiac mooy dafa nekk industrie boo xam ne daf fi nekkoon dépendre ci Sonacos Sonacos moo ko doon jox produit bu ñëwee daf ko doon jox gerte gu bari mu dem nal bu nalee da am bénéfice dem na dem dem ba ren mënu ko am mu tuur ci kii euh, moom heure bi muy jot gerte googu am na industrie yu nekk Kaolack man xeex naa pour industrie yooyu jot ñu ne ku jaarul ci ñoom doo am booba béykat baa ngi ci coono ndax booba la béykat lañ doon wax mu dem jaay kilo cent cinquante te ñu fixé woon deux cent te Raziak mosul wax kon bu waxee ñun la bugg a jëriñoo pour xeex ak ministre bi te duñu ko nangu ñun li ñu gis mooy dox na ministre na teg fi mu teg tànkam na ko fa teg te fexe ñu am jiw bu baax na fexe béykat bu ndaw bi jot matériel agricole rek jax nañu ñun loolu la ñuy ñaan.